la la ziar la kontaanee la lu bëree bëri. waaw Pël ñu ngi lay fay di kontaan bu baax a baax ci sa teewaay di wax rek encore jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Thierno Borom Daaru jërëjëf Thierno Borom Daaru di sant yàlla bu baax a baax a baax di julli ci yeneen jëbe di sant suñu ñaari waajur xam nga ñaanal suñu baabu fee mu tëdd ci àllaaxira yàlla ko suuf seddee. aljana xam ak képp ku mu fa fekk mu ñu xippee aljana eh, di ñaanal aussi tamit képp koo xamante ni yaa ngi écrit grand mbooloo mhm. am combat di la ñaanal victoire bu sedd guy comprendre nga di nuyu mhm. l'ensemble zone 7B de Grand F di nuyu mbër yi nga xamante ni ñu ngi écrit Grand F mbooloo ñëpp bàyyiwuñu kenn di sant yàlla bu baax a baax di wax ni onon bandiraɓe haalpulaaren min beltima no feewi on jarama allah jarama eh, duwaji ɗi jottima mhm. eh, di wax somo mbokko jaagoye mo woni ɗum mbosmo jakku grand f séeréer yeeg bambara yi tukulóor yi e, joolaa yi ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ni ñaan yi egsi na parce que Grand Yoff dafa yaatu ko Grand Yoff e, mun nañ ni moom mooy moom mooy e, Afrique en miniature parce que xeet boo xalaat mi ngi Grand Yoff mm-hmm. donc ci loolu rek dañ ciy sant képp koo xamante ni yaa ngi yeewoo zone 7B de Grand Yoff mm-hmm. bàyyiwuñu kenn doo xool. <laughs> doo ngi lay gis euh, donc euh, nga daal di bëre ak ki nga xamante ne moom moo di adafas euh, dañ lay féliciter di ko encourager moom mais bi nga jëlee combat bi ñu bari favori ki nga xamante ne moom moo di adafas moom lañ ko joxoon ñu ne Zarko pourquoi bi mu defee retouram daal di jël ki nga xamante ne moom moo di mbay guy gi daan ko jël ki nga xamante ne moom moo di Baye Mandione daan ko pourquoi muy may opportunité ki nga xamante ne moom moo di Ada Fass parce que jël bi nga jël Ada Fass boo ko daanee amul fenn foo xam ne da lay yóbbu mais moom su la daanoon tey ji yaa ngi doon xaar loolu xëy na dina bénéficier daral ci li nga xamante ne moom moo di carrière am moom wax dëgg yàlla xaaruma yàlla xaaruma woon mu daan ok xalaatuma ko woon sax foo ko teg ñu bi ñu génnee bi ñu génnee ay mbiru yàlla suñu borom mhm. teg ko xam ni mooy un yàlla lépp luy am moom moo koy dogal mhm. bi ko xamee ba pare ci teer nii rek ci nit ak nit rek man du ma nelaw ba xalaat ne Ada Fass tax may daan moo taxoon nag moom am na coowu laam xam nga. Mhm. Eh, wax ji mi ngi bëri ci moom ñu jël ko bëri moom xam ndam ñëw ci. Mhm. mais toogu nelaw ba xalaat ni Ada Fass dina ma. daan ci dara du ci xeex du ci bëri. Mhm. parce que bokkuñu sax maturité bi ñuy bëree man ak mhm. eh, yaa ngi koy wax coow li bëri woon na nga daal di jël Ada ci côté euh, public euh, li nga xamante ne rek li waroon euh, ci làmb jooju noonu yéen ñaar ñëpp indi ngeen ko ci côté popularité li nga xamante ne moom lañ doon soxla ci làmb jaay ngeen li nga xamante ne moom moo di bës bi ba ki nga xamante ne moom moo di promoteur bi di Pape Abdou Fall am ci mbégte ak contentement amateur làmb aussi tamit daal ciy bég nga dikkaatul ñu tuuti ci combat bi parce que gis nañ apporter beneen touche euh, Zarko mbéj na ki nga xamante ne moom moom moo di Ada Fass kon nga ko ten waxoon nga ne di nga ko kot mbéj bi pourquoi nga mbéj de di kaatal ñu tuuti ci combat bi. waaw mais bëri la rek bëri la parce que dóoruma ko dóor bu irrégulier. mais pourquoi nga koy mbéj tamit mais loolu dafa am ci bëri. Hmm. am na ci de. bëri xam la lañ lay tere nga dóor ci partie intime ak nga dóor ci doq. Hmm. loolu lañ lay tere ci bëri ñun xam nañ ma bëri de. mais leneen bu la neexee mbéj bu la neexee koŋ bu la neexee def lu la neex ci bëre <laughs> loolu lépp am na ci bëre mais nag xam nga boo defee loo xam ne nit mosu ko def c'est normal que nit ñi coow parce que ñun loolu dafa bokk ci ñun coow dafa bokk ci ñun loolu moo tax xam nga bi ñu bëreeg moom ñu xam bi ñu jàppante xam nga ba téléchargé ko ba pare xam na ni kii nii muy ñu sonal quoi mhm. léegi nag lan moo ci des foog faut donner ton public un spectacle qu'il mérite loolu kese la ñu jox public bi loo xamante ni mosu ko gis xam nga kontaan na ci spectacle bi ñu ñu joué loolu parce que tamit nit quoi qu'on puisse dire yow si li ngay liggéey ci loolu ngay defee show ba nit ñi bëgg la ci mm-hmm. ku ci nekk da ngay ñëw indi sa fem indi sa tuusu bopp donc ñun tamit ñu ñëw créer suñu yëfu bopp xam nga di wax ne nag ñi ma doon supporter ñëpp ñoom ñi dëgg Grand Yoff ak man xam nañ ni kii nii bu tàmbalee def nii rek saaba veut dire que ni kii maîtriser nañ ko ba pare kon donc ñeneen lay jaaxal mais ñun ñi nga xamante ni grave lañ dëkk jaaxaluñu quoi. Mm-hmm. ngeen jàppante nga bàyyi ko mu daal di jàpp sa ñaari bëtu ngemb yi te ñu bari ñu ne Ada Fass bu jàppee rek dafay daan ci li mu la ci li mu mënee ci loolu la ko Zarko daanee mais bi ngeen jàppante benn instant yow yaa ngi bàyyeeku bàyyi ko mu euh, ñu koy mbéj lan la la wax ba nga mbéj ko. xam nga dañ jàppante xam léegi mu ne mu ne eh, bi mu téye ngembam. mu mm-hmm. ne ko yaa ne woon nga may yenu yenul léegi yoo laay déglu léegi mbéj bi nag looloo koy indi. ok <laughs> génnee bopp bi pour tontu ma si si kon bàyyi woo ko mu tontu. non mag buy wax kenn du ko tontu <laughs> xale du ko tontu gaynde buy wax xale du ko tontu jamais. ok la fa demee nag looloo indi loolu détails yooyu noonu yëpp. Mhm. maanaam waxtaan la ci biir bëre quoi. Mm, d' accord mhm. mm. ok euh, koŋ bi nga waxoon da nga koy koŋ aussi tam jouru làmb ja nga daal daal di dëggal ko daal di koy koŋ moom Ada Fass. maa <laughs> ngi jégalu nag de <laughs> Jancho maa ngi jégalu lu bari bilaay si loolu lu mu mënoon demee la rek xam nga moom jàmbaar la man jàmbaar laa wax nga ma mm. te xam man it xam naa ne bu ma daanoon. xam naa ne dina ma dóor te après dama ko koy baal xam ne man maa ko waxoon. Mhm. wallaahi al azim bu ma daanoon moom ba pare dóor ma billaay wallaay du ma ko sax faale. dama koy bàyyi parce que xam naa ni man ñu dañ ko waxante woon. man tamit ma def ko loolu rek garaaw. ku nekk def li mu wax rek. ok jouru làmb ja nga gis bi ngeen jàppante ñëpp di tiit ñi nga xamante ne dañu bëgg Zarko ñi ngi tiit mais ko ci moment boobu noonu mi ngi def ay ay fëleem ku xam Zarko xam ne ci mbër yi immature ci la bokk. ñu baal ma ci mooy loolu. ngay mbëllee ñu ne mbëllee bi nga ne Gris Bordeaux nga doon waxal parce que moom moo ko indi boobu moom nga doon wax ne ko du maag booy bi man ak yow la nga def loolu. non yow xam nga ñun moom wax dëgg yàlla moom yow boo bëggee dindi sa stress moom del suivre Zarko ñëwal ci Zarko ñun moom ba ci fépp fu ñuy bu ñuy nelaw sax dañuy dañuy dañuy def lu ñu sentir. Mhm. yaa ngi comprendre mhm. loolu nag xam nga àddina moom mënoo ci nekk ba pare ne dangay ngay dund da ngay da sonal sa bopp ci loo xamante ni eggagoo fa wala munoo ko. Mhm. donc li nga mën rek loolu ngay jaay loolu kese la. boobu noonu bi ma ko téye bi mu buñ téyantee ba pare ci laa doon mbalay giri naan ko sa kaw laa jëm si. comprendre nga mu may mu mu may koy wax loolu kese la. Mhm. moom bu fekkente ni eh, booy bu mu indi xam nga pareegul moom nañoo mottali ko quoi. Mhm. maa ngi dégg nag rax ji Maodo Maodo naan naa jaar ci moom ba pare. ok soo ko jël giri. mais wax na dëgg jaaral ci Maodo. waaw mais bañu ma loolu. Mhm. mais moom Maodo. bu jëlee eh, libidoor. ba daan ko man ma jël ko moom. Mm. Maodo bu jëlee libidoor bu daane libidoor man ma jël ko moom loolu du fee. moom na ñëw jël Libidor daan ko man ma jël ko daan ko ba pare daan giri maanaam étape la quoi il faut mu fu mu jaar door a ñëw si yow munul non non munul nekk munul nekk léegi fi mu nekk nii moom wax dëgg yàlla egg nañ ci làmb niveau boo xamante ni du du du du du n'importe kii rek da ngay ñëw rek mu bëri ak yow parce que staff bi dafa gën a yaatu staff bi dafa gën a dëgër ay borom bopp dañ ci ñoo xamante ni dañ dañ ciy xalaat dañ dañuy bind dañ dañ toog di ci di ci waxtaan si loolu noonu yëpp population de Grand Yoff ñoo ñoo ñoo ci concerté wu di ci waxtaan. Mhm. donc ñu nekk naan dañuy jël n'importe qui. Mhm. moom dafa am yoon man dama am yoon. Mhm. comprendre nga giri indi na mbër daan naa ko na ñëw indi na ñëw man moom bëgg na bëreeg man na ñëw bëreeg libidoor bu daanee li bi man ma jël ko. c'est mhm. mhm. Mhm. Ah, parce que euh, yaa ngi wax lu am solo ne staff bi dafa am doole le retour de Zarko Zarko ñu bari euh, macha allah bi ngay dem da nga fi bëreeg ñi nga xamante ne say génération lañ amaana na yi yow ak ñoom yéen a bokk génération rek. ku daan suivre ki nga xamante ne moom moo di Zarko di nga xam ne a ah, ñoom ñooñu duñ sama génération de. ñoom Zarko yi nii. Euh. ñoom ñëpp ñoo mag. duñ sama génération ñooñu ay paalañ de. xanaa moom booy dinaa leen ndax ñoom dañ ma jàppee paa rek. non doo paa doo paa man naa nekk ma nekk paa parce que xam nga moo tax tur Zarko daf ma jiitu quoi mm, dafa mm. yàgg. la loolu depuis jamono suñu ñoom yaay la. Mm. loolu moo tax xam nga boo déggee Zarko rek da nga naan kii mag la mais ñoom dañ may jàppee paa mais ñoom Moussa Ndoye ak ñoom may eh, kii nu mu tëddee Modou Anta ñoom ma mag téeméeri junni yoon fuuf du ma sax seen morom. billaay wallaay lu leer laa lay wax. Mhm. Hmm. Mhm. yow ak ñoom yéen a bokk génération euh, Zarko bi mu ñëwee ñu bari dañ doon xaar euh, mu jël revanche am ci ki nga xamante ne moom moo di Sa Thiès wala ñoom ay rëg-rëg mais Zarko daal di wàcc ci suuf ne booy yi lay may sens euh, pourquoi nga opté loolu. non parce que xam nga lan moo tax man bi may bi ñëw boobu ñoom ñëpp dañ nekkoon ci contrat te man bi may ñëw avance su Baye Mandione laa ñëwee. Mhm. bi mu ñëwee ñu jox ma baay ma Mandione ñu dem ba ci biir combat bi eh, promoteur bi am problème après si lañ ma proposé mbay guy gi. Mhm. te te fayuñ ma ci sax loo xamante ni lu intéressant la. ah bon non non non non pas intéressant mais bëggoon bëre ak bañ a toog ñu jël ko xam xam nga daan ko après eh, combat bi bi ñu waxee Baye Mandione ñu réglé waat ko. ñu jël bàyyi ma ñoon bëreeg moom daan ko. Mhm. après mooy loolu noonu ñu continuer te dañuy continuer sax. Mhm. man ak waa Grand bu roi des arènes. Mhm. yàlla na la ko yàlla defal muy roi des arènes euh, Zarko nga njëkkee fi nga xamante ne moom moo di Rock Énergie ku xam na ne. macha allah ñu mën mais bi ngay quitté Rock Énergie ci nga ñëw euh, fi nga xamante ne moom moo di. Grand Yoff euh, daal di fi def li nga xamante ne moom moo di seen seen écurie macha allah ngeen di wane li nga xamante ne moom moo di ay ay yu am solo. mais euh, ñaari caay-caay yu bëre dafa nekk ci ki nga xamante ne moom moo di sarko parce que euh, lamb ji nga xamante ne euh, waa Rock Énergie dañ ko doon bëre maanaam bërëb golo bi dafa nekk ci ki nga xamante ne moom moo di Zarko am na ci mbër yu bari ñoo xamante ne xamuñu loolu lan ngay wax ci lool waaw mais ñooñu mooy ñu suivre Zarko rek depuis bu mu nekkee Rock Énergie hmm. mais yow lii nii may def nii yëpp Rock Énergie lañ moo ko jàngale lépp lépp lépp daa mel ne Zarko dooragut bu Grand tey bu Grand bi su ko yóbbuloo gars yi dañuy nangu sama <laughs> billaay moo tax bëgguma ko fa yóbbu mu koy indi mu koy indi ci arène bi ñuy nangu sama licence boobu day ëpp ci ñoom parce que defaguñ dara rek xam nga ñoom ñi ku nekk ngi wax wax ju ne donc moo tax ñu ñu stand boo gisee làmb ji ni ñu xaw a wàññi sax niveau bi noonu la fa demee loolu moo tax quoi. Mhm. ok euh, sa live ak ki nga xamante ne moom moo di guy gi ko nga dugg mm, euh, comme li may wax rek da nga immature euh, yaa ngi koy mbalak ba guy gi xaw a gis li nga xamante ne moom moo di mhm. boppam nga ne ko Michelin nga parce que man ak yow dañu ñamante ñaar yoon ma daan la te yow jamono ji may daan xam nga nu mu fa demee woon mhm. yaa ngi comprendre ñëwal ma wan la la doo dara parce que da nga jeexal fan nga teg loolu. mais moom man jamono bi may daan sax boobu xale la boobu ndaw la boobu may toll fi aada billaay wallaay boobu boobu loolu yàgg nag lu ëpp na 15 ans. saa mhm. waay boobu maanaam maturité yokku na euh, force yokk na te mbooloo tamit yokku na. Mhm. du léegi bokk na guy gi guy gi boobu noonu ma daanoon guy gi boobu daanoon ma moo gën téeméeri junni yoon guy gi bii nii yow guy gi bii nii pataas mbooro la <laughs> bu tàngee day bàyyi. pataasu mbooro la bu tàngee day bàyyi. ah bon billaay bu tàngee day bàyyi. pourtant guy gi guy gi guy gi fu mu nekkoon ba léegi mu ngi fa des arco. man ah, mu ne na ma jël. na ma ko na ma ko ñëw guy gi bu bañee rek nañ ma jox zos. ah nañ ma jox zos benn. bilaay zos men. zos men bu guy gi bañee nañ ma jox zos. ah bon si parce que eh zos zos quoi qu'on puisse daan na booy ñaar. Ah. te boo daanee zos booy ñaar du la bañ. Mm-hmm. si booy ñaar am am na revanche bu mu war a jëli ci zos. non Zos mi ngi ci làmb ji de génnagul de Zos ki mu daan moo daan Balla Gaye mhm. Zos génnagul ci làmb ji de guy gi bu tapetee nañ ma jox Zos wax ji yëpp la bu tapetee rek nañ ma jox mhm. euh, mais mais Zarko dafa mel ne instant bi da ngay minimiser ñenn mbër ñi parce que dégg naa la euh, vocal nga fi euh, ki nga xamante ne moom moo di Lac de Guiers pour que na na la jël dafa tapet et tout ça te moom depuis lors mi ngi toog amagul li nga xamante ne moom moo di combat Gris Bordeaux aussi tamit la même chose pourquoi nga ciblé ñooñu noonu nga xamante ne dem nga ba ciy tudd ki nga xamante ne moom moo di ëmm seen ëm daa dëgër de dégg naa la nga ne ëmm booy bëreeg moom. doo nangu mu lii la parce que dafa gàtt da koy dóor ba mu toog. non yow Modou Lo moo ko dóor mu daanu de. ama <laughs> seen Modou Lo ko dóor mu daanu kon du sawar ci Zarko. ah bon non moom xam na loolu xamante nañu day yow. moom pourquoi nga ne moom da nga koy dóor. non yow Modou Lo moo nga daanu de Modou Lo dafa gàtt. waxuma laaj Zarko man na lay koŋ nga daanu dafa leer ama <laughs> seen. Hmm. non dama koy koŋ mu daanu. kan ëm ëm. am dafa dëgër de. non Modou Lo moo ko dóor mu mbëpp teg si baa ngi fi ah koy koog mu daanu kooku du kooku du jël yow xalaatu ko sax. Mm. non yow tamit man yow gars yi dofuñu de gars xam nañ fi ñuy teg seen loxo de. na ma jël la da moom tapet la. tapet bu mag la moom topp nañ ko sama làmb sonn muy ruux. na ma jël wax bi mooy ngeen amul Zarko dafa réew amul lii bi ngeen si tollee nii ngeen doon waxee kon nu ma sentir laay waxee. yaa ngi dégg nu may wax du benn mbër moo koy lijjanti du Gris Bordeaux du Balla Gaye du Eumeu Sène du keneen bu leen lijjanti nu may waxee ma réew maa tay bu ngeen ma bëggee bu ngeen ma ñemee bu ngeen ma bëggee yar da di jël sama avance ngeen xool ndax di ngeen ma yar wala du ngeen ma yar maa ngeen gën a pare fuuf yee wax bu yëpp loolu la. kan moo moom loolu ñoom. ñoom ñooñu noonu. ñoom biiru maafe yooyu noonu. kan moo yor biiru maafe. ay Eumeu ay Gris Bordeaux ay Lac ay guy Gui ndëqate yooyu nekk fi bañ fee jógee te di ngeen di leen fi jëlee force mun leen si dara bu ngeen ba ku ci ne doo fi jógee rek na nga jël Zarko nga xool ndax di nga fi jógeem déet moo mhm. ay tapet lañu moo tax ñuy waxee nii ñoom biñ nekkee xale ñoo gë biñ si tollee ñoom ñoo gënoon garaaw ñu doon waxe gis ñu parce que ñun ñu ngi leen doon seetaan ñoom ay saaga sax dañ ko doon def si signature ci télé sax dañ si doon saaga ñoom ñëpp léegi ñu bëgg ñu ñu bëgg yar ñun ñu ñuy waxee man bokk ma ci boo yooyu ngeen wax ni ngeen waxee de man ni may waxee du yéen a koy lijjanti lijjanti leen seen bopp. Hmm. voilà. ñoom ñoom moom loolu ñoom biiru ñoom ñooñu ndëkkate yooyu noonu ma la wax. ñoo xam moom ku mun naqari jëlee sama avance maa ko wax maa tey voilà. <laughs> mais bi ngay préparé sa combat ñu bari dañ doon xaar Zarko dem Europe euh, préparé ko comme ñeneen ñi niñ koy defee mais Zarko génnul fii la toog euh, fii Grand Yoff préparé ko génn bi nga génn yëpp Gàmbi nga dem te Gàmbi dégg naa ba nga fa demee nga fa nekkee woon pourquoi lool. <laughs> yow ni yow nee naa la tapet dafa neex a préparé. tapet noo ko préparé la noo ko préparé baax. kuy tapet. ah da ngay laajte doo xool doo xool da ngay laajte <laughs> tapet noo ko paree baax ma. dara jël avion ñëw jël rek dama gàmm bi. moo tax nga demoon football yi. non dama leer. dama leer tamit. nekkul loo xamante ni lu lu lu garaaw la si ñun. Mhm. pour ñëw nii duma Arafat benn ngoon wala duma benn Gris Bordeaux wala duma benn Eumeu Sène wala duma Lac de Guiers nii loolu du cas bu si ñun. wala laaj yéen yooyu ñoom ñeenti ñëpp bu leen bëgg promoteur bu nañ def signé signé contrat man ak ñoom. Mhm. ñoom ñeenti ponkal yooyu noonu nañ ko signé man ak ñoom. ma jël kii jël kii jël kële. bu ñu bu ñu bëggee benn jour ñoom ñeenti ñëpp. dégg naa dañ la appal 10 combat yee booy ma bant bi jottali ma cat jërëjëf jël leen ma man yéen laa bëgg yéen yéen laay wër du ma nelaw bul sax dallu yéen laay wër Gris Bordeaux doo Sène Lac de Guiers Balla Gaye eh, guy gi kii nu mu tudd guy gi kii la tudd Kancooli Kancooli yéen laay wër jël leen sama avance ngir ngeen xam ne lépp dëgg la. mais pourquoi nga choisir euh, bàkku Balla Gaye bi nee nga dafa gën a nooy moo tax te mënoo fee ci te Balla dafa jeexal windeelu bi nga ne Balla defatu ko nag fan nga ne pourtant Balla mi ngi lu de. non windeelu rek moo tax mu créé beneen il est très fort c'est un très grand lutteur. billaay la de Balla Gaye mbër la de. booy ñaar daan na ko mais champion la de dafa juum rek. bu juum rek te bëri boo juum doo mm-hmm. daanu. Mm-hmm. c'est mm-hmm. Euh, euh, sa partenaire la daf lay jàppale. Euh, ñu bari di ko sa sa sa waay la jàppale bi ça veut que ni bi nga bi nga demee Europe bokk na ci mbër yi nga xamante ne moom woo na la pour ne la da nga bokk ci làmb ñëwaatal et tout ça ku ne xam na ne sa làmb ak Ada moom ci yow mii la defoon favori te yow aussi itam la doon faral. ñu gis ne def na fi sorti def benn kii di dànkaafoo ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa jeunesse am euh, ku ci mel ne euh, waa euh, Kër Massar nu mu tudd jàmm a gën Sicap Mbao fas ay ay ay Sips et autres que ni coow li mi ngi am ci réew mi balaa ka bi ñoom xeexuñu te duñu xeex la mu mel ni am na ñu ci bari ñoo xamante ne dañ ko mexe ci loolu ne ko mbër nga da ngay rester ci mbër ci mbëre bi voilà affaire politique la <laughs> non ñun ay la ñun grave taluñu ay noonu ñun dañuy liggéey xaalis lu ñu joxee tere xale yaay la ñuy wut ñun kenn duñu kenn duñu xeexloo kenn duñu xulooloo taluñu dara dañoo weex dung dañoo weex dung ñun luñ dugg moo ëpp moom loolu la wax dana dana dana ñoom euh, duñu xeex duñu xuloo non ñun voilà loolu la wax mais ñu bari dañ ko dañ ko mere ci loolu xam lu ñuy xeexal ñun mhm. teral yaay teral njaboot teral raq teral doom teral teral dëkkandoo ñun loolu loolu mooy suñu xeex mhm. mais ay xeexu ñàkk fayda yi amuñ ñu grave amuñ jot jotu kenn amuñu jotu Sonko amuñu jotu Macky Sall amuñu jotu kenn. kon daal mbër na yem ci place mbër. non na yem ci place mbër xeex nañ ko jëmale ca ajak jak ñun grave kenn ku fi ñëw di fi xeex ñun waa grave ñoo lay jàpp caw la ba nga màndi. Mm. Eh. Eh. Hmm? Ah. non mbër dañ a fay ba pare lim si mbër waa grave ñun fàttewuñ loolu de ñun waa grave loolu moo tax nag ñu ñun ñu xamal. xam suñu bopp maye patt ak organisé bu ñu kenn dugal ci benn détail bu ñàkk fayda mhm. xamuñu ko sax. Mhm. Ah, ñu ñëw ci actualité euh, loolu sax xam naa ne ñàkkul ne am na ñoo xam ne laaj nañ la ko ki nga xamante ne moom moo di euh, le fils de Falaye Balde di Ama Balde ku ne xam na ne Modou lool la jëloon mais combat boobu euh, jul antu parce que moo Modou dafa blessé woon mu daal di jël ki nga xamante ne moom moo di Gris Bordeaux moom aussi tamit mu daal di am blessure moom Ama Balde ne moom moo di moo eh, Modou ak eh, kii di booy Niang mu mel ne dafa commencé jur coow fële nga xamante ne moom moo di ci pikin ñu naan sax bu ñu repput seen 200 eh, pour cent boobu noonu dina dina tas parce que Ama moom moo njëkkoon jël ki nga xamante ne moom moo di Modou loo lan ngay wax ci loolu. non xam nga nit yoo xamante ni moom wax dëgg yàlla dañuy yàq gox. Mm-hmm. baaxul. Ama Baldé bëreeg booy eh, bëreeg Modou Lo wala eh, Boy Niang bëreeg Modou Lo mhm. loolu ku ci nekk sa wërsëg la mhm. nañu jàppale Boy Niang mu dem bëri lu ko yàlla may mu jël mhm. mais yàlla na Modou daan mais di Ama Baldé comme eh, combat moom ak kii comment dirais-je Modou yàqu na Ama Baldé dem liggéeyaat rek Boy ñaa ñëw fi pour xaar kenn man ñëw ma fi pour xaar kenn donc loolu jarul polémique di bu am ko jarul wax di am contrat eh, ku nekk ku ci nekk boo liggéey sa kër papa nga yóbbu. Mhm. yaa ngi comprendre nañu dem taxaw booy ñaar dem jàppale ko mu bu demee si biir làmb ji yàlla ko Modou Lo daan amul amul leneen mais nekkul loo xamante ni luy jaxase la wala lu mën a yàq loolu mënul yàq dara après bu bu booy ñaar bu ko Modou Lo daanee après Ama Baldé ñëwaat garaawul. sport la rek sport la rek. parce que am na ñu naan am na ñu naan bu fekkee ne booy Niang moo daan kii di Modou Lo euh, Ama Balde daf ko par da koy jël par la force parce que am na ci ñenn ñoo xam ne jege ñaale Ama Balde lañ ñi ngi naan Ama euh, ki jël roi des arènes loolu lay bëree ak ku mu mënti doon. non ñoom xam nga li ñuy wax noonu waxin la rek Ama bëri na fay adversaire bëri na ñu mu war a ñu mu a bëreel ci làmb ji. si Ama ñu mu war a bëreel bëri nañ bëri na bëri na ci làmb ji donc nañ ko bàyyi rek mu def mu def kiyam mu def euh, parcours am jarul wax ji di bëri sax. am ma Boy Niang yëpp ku ci nekk da nga am da nga am parcours boo war a def mais Boy Niang aussi bëggoon na bëreeg Modou Lo Ama Baldé bëggoon na bëreeg Modou Lo mais pourquoi pas Ama Baldé booy Niang. Hmm? pourquoi pas. eh mais mais dañoo ne mbëru Pikine yi war a ñu bëre. non daay wàll amul mbëru Pikine yi yàgg nañu bëre te ba tey ñu ngi bëre ku nekk sa kër paap nga yóbbu Ama Modou Lo bu daanee Boy Niang Ama Baldé jël Boy Niang ñu bëri ñoom ñaar. ok jeex na amul leneen de làmb la rek. làmb du du du ay ndey ak baay ak yooyu papa de déedéet. Mhm. liggéey la sport la rek comme yeneen sport yi. yaa ngi comprendre mu Ama Baldé day liggéey ñëw Boy Niang day liggéey. Mhm. mais bu bu ko Modou daanee na dem jël booy naka naka jël ñu bëre léegi après Pikine ñëpp dañuy noppi. Mhm. xam ni kii moo fi nekk. mu jeex comme ñun comme Dakar ni mu def rek ma ak aada lañ tegoon. ma kii ko. léegi ñëpp a ngi ñëpp a ma topp noonu la rek maay borom Dakar jeex na noonu la ma demee. <laughs> loolu la rek amul mhm. leneen. Mhm. yee. ñu gis sa combat bi mu jeexee bi ngay ñibbi si euh, moto nga yéeg euh, Zarko pourquoi nga choisir yéeg moto. parce que man demoon dara de. Ah. yow loolu fee la ci gars yi mais du ci ci man de. billaay dama woon nii soulagé nii rek leen benn xeex. yàlla mais du kaa bu critique nii wala bu divisé. moom moto bi. moto bi. moo mhm. yow loolu te tànku neen laa ko dawalee. man kay gis naa lu gis naa ah loolu dara yow ay dem nii xeex ak benn nit. yow tollal ni King tollal ni King Kong foo fekk nekk nam la fay fekk xanaa xamoo loolu tax la dëgër sawarul ci man maa ko gën a dëgër bopp téeméer junni yoon ñoom xam nañ loolu man ragaluma ay teppeeku wala nga ay patal sama bët non non non non loolu dawul sama yaram loolu moo tax sawaruñ ci man mais ay benn xeex nii loolu du kaa bu critique dem xeex ak benn nit ah, man may xeex ay soixante-quinze personnes moo tax nga jël moto bi benn nit ma jaaxal non billaay wallaay benn nit man su ma jaaxalee kon man li may wax nekkatul dëgg man Grand Yoff laa dëkk ko doo jibinaami mhm. min komi wi pullo ko doo jibinaɓe e eh, oɗo leydi ka ah, pullo koy si ko oɗo leydi jibinaɓe komin woni joom koddam e kesam e kosam komin woni joom naydi komin woni bakan sa jagui mi jagat sa jagani mi jagat sa ari mi arat sa arani mi arat billayi te sumala jappe asa mbokko dem ma wuli nu mboos ma njëkku Grand Yoff. waaye hmm. tamit. looloo waral nag euh, euh, keroog bi ngay bi guy gi la ah, keroog keroog keroog bopp bi ñëwul bopp bi. non bopp bi xam nga moo tax ñëwul nag sama yaay mu barewul. sama hmm. yaay moo ne bu mu dem. mère moo ne bu mu dem mère moo ne bu mu dem moo tax <laughs> <laughs> mais dama ko doon yóbbu. bilaay mais terewul supp naa ko de supp naa ci supp naan ci lu am jom. lan bopp mbaam dafa leer ah. nga ñam supp bopp mbaam. bu boo naan supp bi nag ba daj ci nopp bi croquette bi doo xool boo demee croquette bi saf la def yow bu ma yónnoon booy léegi ñu indi la koroket dafa leer dafa leer mbuus lañ koy diw xoola ba soble ko soble mu tar yooyu barki sëriñ Bamba waxal waaye <laughs> dafa leer tamit suñu foor la ragaluñ loolu mais laata ñuy tàggatoo nga def benn gest bu nice euh, nga defati sax laay wax euh, parce que euh, ñu gis sa combat bi mu jàllee ak Ada ñu dagg la dagg ko moom ñu aj ko un an nga ne moom xale la dafa nekk ci yoonam aj biñ ko jël nañ ko jël jox la ko. mu jox ma ko dekk ko. ñu jox ma ko man garaawul. nañ ma ko jox man bañu ma dara sarax ndongo rek war mu tëb ak dooleem bañu ma dara mais Ada nekkul mbër boo xamante ni dañ ko war a aj xam mu jóge ci lii nii te ñëpp xam nañ ni metti na ko donc CNG pour ñu delloo si parce que CNG tamit foog ñu xam ni ñoom ñoo war a mun a dimbali jeunesse bi pour ñu bëgg làmb mën a yéeg comprendre nga ñu jéem a wàññi yenn sanction yi wàññi yenn yenn règlement yoo xamante ni dafay metti mbégte ak contentement lañ doon am euh, jàkkaarloo moom ki nga xamante ne moom moo di Zarko champion bu Grand Yoff euh, di ko jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité di leen jox dig daje ba beneen yoon rek ak beneen ndaanaan merci